wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 31 décembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëgle kaay yi moo xam sunu làmb la record la tribune wala sax leewtoo point net fu nekk daal tey jàppal na ay xibaar tamit xëyati fa ñeel li nga xam ne moo di mbirum làmb ji bu dee yëglikaay bi di sunu làmb la moom moo record moom dañoo ñëw ci at mi nga xam ne nii daal mooy jeex tey ci talaata ji tombeek 31 décembre 2019 mu mel ni ki nag yëglikaay bi di sunu làmb moom dellu siwaat na maanaam fàttaleku at mii ñu génne saison bu làmb ji la nga xam ne nii daal maanaam waa làmb dal na leen ci wala am ci ñoo xam ne nii boog am nañ ci ay bés yoo xam ne nii yu neex la ci ñoom wala yoo xam ne nii itam yu naqare naqare la yëglikaay bi ñëw na ci fukki yoo xam ne daal ak ñaar yu yu mag a mag la yoo xam ne daal marqué na 2019 bi boo bëggee dégg-dégg moom lam ñu njëkk a won mooy ki nga xam ne nii moom moo di Modou loo daal moom la kaay bi jàpp tudde ko li nga xam ne nii moom moo di homme de l'année mu mel ne ki nag 2019 bi kon sunu làmb loolu la jàpp Modou Lo daal la ko jagleen ne moom mooy homme de l'année la ko waral nag maanaam kaw ba nga xam ne nii kawate na ko Eumeu seen muy kaw boo xam ne daal bu spectaculaire la kaw bu doy doy waar yëglekaay bi ñëw na ci ak aw photo keneen koo xam ne tamit marqué na at mi muy ki nga xam ne nii moo di Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye mu mel ne ki moom tamit daal jël ba nga xam ne nii daan na ko Modou Lo muy jël boo xam ne bu rëy rëy la yëglekaay bi tamit na ci aw foto wan ñu ko ka nga xam ne nag moom moo nekkoon roi des arènes ci atum te ñàkk ko muy Eumeu Sène yëglikaay bi ñëw na ci moom mu mel ni ki tamit day moom roi am daal yàgg da ko caa defut keneen koo xam ne ni tamit marqué na at mi mu mel ni ki moom at mi neex na ci moom lool muy ka nga xam ne moo di Omar Kane ba nga xam ne daal daan na ko ka nga xam ne mooy Gris ba nga xam ne masuta daanu ci lamb mu daan ko jël bu réy réy yamu ca MMA ba tamit mu dugg ca won Sofiane boppam laal ko laal yu métte gënee metti moom itamit yëglikaay bi ñëw na wan ñu ko keneen koo xam ne tamit yëglikaay bi da caa ñëw muy écrit ba nga xam ne tamit la nga xam ne nii lu markaat mi la muy génn ga xam ne génn nañ ko ke ci ga xam ne moo di Papa Sow ak koo xam ne tamit ak dellusiwaatam ci làmb ci 2019 bi muy Gaston Mbengue taxawaloon combat Modou Lo ak Balla Gaye numéro 2 waaye leneen bi mooy Luc Nicolaï mi taxawal Ama Baldé ak Modou Lo te ñu mujj ko jàpp yóbbu ca kaso ba yëglikaay bi ñëw na ci koo xam ne tamit bu jëkkam muy dugg ci lamb di tëgg comme promoteur yore licence muy Baye Ndiaye moom itam mu mel mel ni yëglikaay bi daa jàpp na daal kon 2019 bi ci la ñëw amal loolu moo tëggoon Lac de ak Boy Niang mu mel ni kon moom itam tànki mag ja di Aziz moom la topp keneen koo xam ne tamit ci 2019 bi la ñëw tëgg combat royal ba doxoon ci diggante Modou ak ki nga xam ne moo di Eumeu Sène muy Moustapha Diop mu mel ni ki moom nag fa ca mujj a neexul ndax daal yëglikaay bi daa jàpp ne day lap la def maanaam daal dafa mujj a noyé ca combat royal ba nga xam ne moom la tëggoon ka nga xam ne tamit atum 2019 bi neexoon na ci moom lool muy général Malick ginnaaw bañ ko ne nag mbër yi bër simple yaa ci raw ñu jox ko trophée ANPS ba waaye yemuñu ca tamit ak daan ba nga xam ne daan na ko rëg fa nga xam ne moo doon ca arène Adrien Senghor muy loo ne tamit lu marqué saison bi la ki nga xam ne tamit moom moo di Mor Fadam wala Dudu Yaay Kati ñi nga xam ne tamit caat moomu la ñu génn àddina muy lu tiis a tiis a siis dal ci kaw làmb mu mel ni ki yëglekaay bi na le 18 juin 2019 ca la Mor Fadam wuyu ji boromam Dudu Yaay Kati 13 décembre 2019 moom tamit ci la wuyu ji boromam muy loo xam ne tamit lu marqué làmb jël waaye lu méttee métti la ba tey record tamit ñëw na moom ñett ña jukki tamit mooy ki nga xam ne moo di Modou Lo Balla Gaye ak rëg wàllum làmb ji ñu marqué at bu baax a baax a baax loolu tey yëglikaay yi xëy nañ ñëw ci bu baax a baax ci at mi nga ne nii mooy atum 2019 bi waaye leneen loo xam ne tamit amoon na fi bëri ki dem muy làmb ji doxoon ci diggante Alioune Sèye Senior ak ki nga xam ne moo di dafa mbër Alioune Seye nag mu ngay xëy di défendre mag ja nga xam ne moo di amaja ne na daal amaja li leer ba leer moom duggul ci li nga xam ne nii moo di géew bi amaja nag moom daa mel ni jamono jooja comme rakk jay défendre ama moom mu ngay jéggulu ndax daal moom daa jàpp ne daal dafa def li nga xam ne nii moo di erreur waaye beneen combat boo xam ne nii moom dañ ko nar a bëre suba ci premier janvier bi fa nga xam ne nag mooy ci arène nationale ba Serigne Modou Niang mu ubbi woon saison bi daa mel ni tamit atum 2020 bi moo ko nar a ubbi ci diggante Mori Cargo ak ki nga xam ne moo di Cheikh Super Jamono yëglikaay bi ñëw na ci tamit ak li nga xam ne nii moo di ay photo waaye leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ci wala yëglikaay bi nga xam ne nii moo di record moo ci ñëw mooy ki nga xam ne nii moo di Gris Bordeaux yëglikaay bi day laaj ndax giri mii est-ce pare na ngir bëre ndax na ne na poids bii mu gis mu yor ko est-ce que poids la boo xam ne nii maanaam ku ko yore di nga pare pour bëre ndax nag yëglikaay bi jàpp ne daal Gris ba mu jógee ci la ko arrivé woon ci courant bi comme maasoon est-ce que du loolu tamit moo tax mu toog di nopp lu boog ba tax tey nii mu mel mu mel ni moom daal jàpp na ne pois bi bëri na ba yegg ci lool yëglikaay bi def boobu seetlu waaye ka nga xam ne nag moo koy tàggat di ab Guèye moom la moo xam ne moom jàpp na ne affaire yi sax demewul noonu ndax nag ñëw na fi di contact ak Serigne Ndiaye ay contact yoo xam ne daal yu tegu la ci yoon te jàpp na ne moom bu liggéeyee li mu war a liggéey amut men mbër moo xam ne nii giri mënta jàmmaarloo ak moom yëglikaay baa xëy ñëw di ñu ko wax Lac de Guiers 2 moom ab saison place lañ koy xalaatal ndax nag li leer ba leer pour VIP jël ko moom dafa mel ni loolu problème la wala boog ñu koy moytu record a xëy ñëw di ñu ko wax kenn koo xam ne tamit la bi nee na moom est-ce que du des koy daw moo di Tapha mu mel ni moom tamit yëglikaay bi li la tribune ñëw na ci moom mu mel ni ki nag koo xam ne nii moom la muy le daal moom moo di ki nekkoon mbërëm préféré moo di kanji mi ngeen xaañ kanji promoteur kanji daal nee na mbërëm kenn la woon mooy Serigne Ndiaye mi nga xam ne moo nekkoon écurie Fass nekkoon fa ancien mbër nee na daal kooku moom moo mës a nekk mbërëm moom Kandji moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu waaye mu mel ni ki tamit fa nga xam ne nii daal mooy ca terrain gaal gi daa mel ni Jax tamit dafay dem ak li nga xam ne nii moo di ab miis ci li nga xam ne nii moom moo di àllarba ji miisum un million yëglikaay bi ñëw na tey wax na ko waaye li jara wax te jara xam mooy loo ci mën a dégg 2019 moom tàggoo na li ñuy ñaan sunu borom nag moom mi am te man te yore kàttan tey def di dindi te lu ko soob mu am borom kun fa yàkkun daal nii ñu ko fekkee tey bay wax yàlla nañ ko mayaat 2020 ñu fekkee ko tal ko tey wax defal ko bépp doomu aadama mu nekk ci kaw suuf di dund ñi ci biir suuf tamit ñu ngi ñaan moom mi tal moom mi moom te man tey def yal na leen yërëm te jéggal leen ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di ko ñaan itam ña kaso ya yàlla na leen yàlla delloo si te lañ defoon yàlla dimbali leen ba ñu bañ caa jaara ci ñi tëdd feebar itam ñu koy ñaan moom yàlla mu wéral leen ndax lu ko soob day am lépp moom la mooy dogal kon daal ñun ñi fi nekk di wax nañ jàpp ne du ñuy jàmbaar moo tax ñu des ak muus ñi fi génne tamit dem wuju seen borom dug ñàkk fulla daa fekk ne rek yàllaay dogal ndax moo ko waxoon ku juddu danga nga faatu lu tooy da nga masa wow kon nag li jara ñaan daal mooy di fekke taytal loolu moo jara ñaan di balu ñëpp ak di baal ñëpp ak ndax nag wax yombul te boobu ba tey nu ngi wax bu ñu fi waxee lu déranger rek jéggalu nañ ko ndax wax a lépp lu ñu fi wax mun neex nit tamit nañ jàpp ne yàlla lu dimbali baloo la mën a am waaye daal képp koo xam ne wax nañ lu la blessé ci micro bii baal ñu ko ci ñu la koy jéggalu ku ñu tooñ ñun tamit baal nañ la di jàmm di ñaan jàmm yàlla na yàgg senegal waaye yàlla na am ci àddina bi yëpp ndax nag jàmm maar ci la ñëpp mën a dugg ci la ñëpp xaj mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen sant ba waxee ngeen àndaloon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen nag si dernier euh, jàngatu de la de l' année 2019 maa ngi lay nuyu di la ziar naan rafet na. waaw merci Ndeye Coumba Fall waaw veste bi moom jamono bi may wanteer fëgg jaay ma man jaaykat la boobu laa ko amoon ba tey waaw te lu yàgg dëgg la kóolare daa baax moo tax ma xëy tey sol ko ci 2019 bi nga xam ne mooy 31 décembre tey at bi di jeex. comme ni ñu ko waxee sànq rek ñuy ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku si ñëpp tamit mais di jéggulu internautes yi si lépp loo xam ne ni def nañ ko fi ci wax moo xam reportage la wala si interview la wala si revue de l'arène la te muy nekk loo xam ne ni njuumte la wala mu ñàkk leen a neex nañu xam ne rek suñu sañu lépp lu ñuy wax rek lu leen di neex lay doon mais nit moo matul lu ñu fi wax tamit mu nekk lu leen neex nañ jàpp ne yàlla moo ñu dimbali ba loolu mën am mais du suñu xel wala suñu capacité wala suñu niveau mais lépp suñu borom bi lay soob kon ñu ngi leen di balu ak di leen baal di leen ñaanal jàmm di leen nuyu bu baax baax yow tey Allemagne nga xëy

amul problème tàmm naa ko si yow xam naa at bi ñëw boo xam di nga bàyyi di ma sànni xeer di ñëw nag si sunu lam sunu lam dafa ñëw nag euh, si les faits marquants de l'année at bi génn maanaam ku si mel ni comme euh, victoire ki nga xam ni mooy Modou Lo ko tibbee sax comme journal bi mu ko waxee homme de l'année ñu ñëw nag si combat euh, Balla ak ki nga xam ni Modou Lo daan bu ma ko daan ak aussi Eumeu Sène aussi daan bi nga xam ni Modou aussi daan na ko am na tamit yeneen ay ay information yu tiis yoo xam ni euh, na saison bi muy desewu du jiyaaykat yi ak aussi Papa Sow dàq buñ ko dàq écurie Fass ak jàpp buñ jàpp Luc Nicolas Babacar daal tey euh, suñu lam foofu la génn tey. ak desewu suñu papa tamit Mor Fadam yooyu yëpp ci biir la bokk waaw mu mel ni ki nag bu ñëwee ci loolu moom lu marqué saison bi la ndax boo xoolee buñ ko njëkkee si li nga xam ne nii moom moo di combat Modou Lô ak Balla Gaye yaakaar naa ne combat boobu daaw bokkoon na ci kombaay yi ëppoon doole wala moo ci sax laay wax. yaa ngi dégg ci coow ci tension ci engouement yaakaar naa ba ñuy estat tamit bëre ba ñu bëre bëre jom la bëre fulla la bëre fayda la waaye gis nga jël ba ko Balla Gaye 2 daan mu nekk jël boo xam ne wax dëgg yàlla ah, na ñoo xam ne xaaruñu woon ko parce que yaakaaroon nañ ne loolu mën a loola am na muy jël bu doy doy waar Balla daan ko ki nga xam ne moo di Modou kon loolu marqué at mi lay doon ci wàllum làmb suñ ci jógee tamit Modou Lo itam pour ma leen moom itam maanaam sportif de haut niveau la mu delluwaat ci entraînement am liggéeyaat amaat combat bi mu jógee jógee foofu la amaat combat diggante bi Eumeu Sène ñëpp yaakaaroon ne li mu jóge si Balla Gaye de dina tax maanaam mentalement dootul nekk mais bi mu ñëwee ci contre Eumeu Sène dafa wane waat que ni moom vraiment sportif boo xam ne niveau mu baax na ci côté mental ak entraînement lépp mu ñëw gis nga kaw ba mu teg Eumeu Sène nangu roi des bi muy kaw boo xam ne tamit waa maanaam àddina bi yëpp yëpp la marqué parce que dóor boobu dafa doyoon waar ak la ca xew azir ba am arbitre ba azir muy nekkoon loo xam ne ni lu doy lu doy waar la kon ñaari mbir yooyu tamit marqué nañ saison bi waaye keneen koo xam ne muy Eumeu Sène moom tamit marqué nañ saison bi ndax li tax mooy ni xoolee at weer bi mu ko jël def naan ci weer boobu la ko ma jumul ak même date bi yaa ngi waaw ñàkkaat ko keneen ki ci topp muy rëg tamit ku marqué saison bi la ndax li tax mooy ki mu daan kii de mësu koo daan ak façon jël bi mu ko daan nit xalaatu goon ne war na ko mën a daane noonu mu daan ko yemuñu ca mu ñëw ki nga xam ne ni mooy MMA mu dugg ci wan Sofiane boppam ñeen ñoo xam tamit Papa Sow daa xam face day marqué nit ñi ci at at mi suñu papa Gaston Mbengue ñu ko gëjoon ko gis mu indil ñu daaw Balla Gaye mu Modou Lo mu nekk lu ñu marqué lig tamit jàppam bi ñu ko jàpp ni nekk tamit lu marqué waa làmb ju ñu ñaan yàlla mu génn fa mu ne Baye Ndiaye tamit ñëw marke saison bi ak tëgg combat waaye Moustapha Diop it marqué na saison bi ñii ñëpp bokk nañ ci ñu marqué saison bi ak général Malika waaye lii moom tiis la muy suñu papa moor Fadam ak suñu papa Dul Seeg yaaykat yi di ñaanal yàlla yërëm leen te xaral leen aljana di wax nekk nag àddina moo tëddee noonu daal waaw euh, Babacar ñu ñëw nag si nga xam ni combat nee ñu même euh, suñu feesee 31 décembre suñu nelawee ba ngoon le premier janvier ki nga xam ne mooy sëñ Mour Ndiaye moom day ñëw euh, jox ki nga amateur yi combat Mori Cargo ak Cheikh Super Jamono. waaw loolu moom maanaam lu am am solo la muy kon suba incha allah rabi ca arène nationale Mori Cargo ngeen nekk saako xam-xam ci suñu papa Ibrahima Ndiaye ki nga xam ne ni mooy Cheikh Super Jamono tamit moom nekk école Mor Fadam ca Guédiawaye mel ni kon combat bu nar a neex la sëñ Mour du ñu suba di ay xale di ay espoir waa xëy na nag euh, euh, ay at si ginnaaw nag tàmmoon nañu suur dalan bu ne maanaam dañ ci daan am ay grandes affiches mais gis nga xëy na loolu tamit actuellement xaw na raar mais ñu ngi ñaanal yàlla rek yàlla na diggaat mais teewul sëñ moom vraiment comme na ma ko waxeewoon rek bopp bu tuuti moo ko gënal bopp bu rëy tey mitti moom daa mel ni ci yoon woowu la nekk ba tey ñu ko ñaal suba mu réussir ko mu mel ni tamit saison bi ñu nekk nii moo ko ubbi woon 2019 jàpp 2020 bi waaye 2020 bi tamit moom moo koy ubbiwaat suba ak Mori Cargo ak kii waa sëñ Maodo di promoteur bu mag a mag moom tamit suñ jógee suñu laam nañ dem fi nga xam ne mooy record record nag abu si xalima abu ndur nee ñu depuis mu commencé bëre ba léegi maanaam ba léegi 2005 jàpp 2006 ngi dem si juróomeelu saison blanche am waaw maanaam bu fekkente ne daal ren amul adversaire moom boo compté li mu def ay année balance bu ci duggee ren day nekk juróomi at juróomi yoo xam ne def na ko année balance loolu nag duñ ko ñaanal benn mbër bu ñu mbër yëpp ay takk seen ngëm bu di ko moytu yàgg gi non non non parce que mbër la mbër la mook Gris Bordeaux dañu war a mën a bëre moo Eumeu Sène war nañ mën a def la troisième combat daan na tafaatin na na na gestu tàllal ko loxo jox ko ramas ñu bëre loolu lépp ay combat la comme Modou Lo am na komba bëriwul ak Balla Gaye yaa ngi dégg te jóge na ci Boy Niang gaj daan na ko mais na jël Gris Bordeaux wala mu jël tafaatin wala moo Eumeu Sène yaa ngi dégg waaye tamit lépp pour mu am ci promoteur yi lay dépendre waaw. Babacar journal bi tamit mi ngi ñuy xamal ki nga xam ni benn dañoo def benn taxaw gëstu ne Gris Bordeaux masse corporelle bi c'est irrégulier jox nañu nag kàddu ki nga xam ni mooy Abdou Gueye Abdou Gueye di coach ci écurie Fass nee na su fekkee ni régulier na entrainement mun a toj yaramam bu baax a baax. maanaam daal ni mu toll nii la yëglikaay bi jàpp ne est-ce que lii c'est normal ah waaw loolu moom sportif moom xëy na am na benn poids boo xam ne su ko yoree dañuy jàpp ne du poids bi mu war a am wala dina ko empêcher pour mu def li mu war a def ah loolu nag yaakaar naa ne comme noonu ñu ko seetloo ay ñi ko yore tamit ay techniciens lañ ku mel ne Abdou Guèye moom mu wax comme loolu mu wax tamit yaakaar naa bu liggéeyee parce moom des fois li koy faral di la bokk. yaa ngi de xëy na boo liggéeyatul comme la nga daan liggéey boo noppaloo mën na am sa masse wàññeeku yaa ngi dégg sa masse yokku du moins mais xëy na buñ ko liggéeyee comme noonu ko Abdou waxee ci semaine wala ci ay weer yàlla mën na def poids boobu dañ parce que Gris yaa yaakaar naa mbër la boo xam ne nii ci poids lourd yi pour nga ni muy bëree jafe na ci poids lourd di ko bëree maanaam poids lourd buy xeex xeex bu gaaw poids lourd buy buy riñaan jafe na te loolu am na ko loolu nag boo yoree masse bu bëri pour nga def ko day xaw a jafe suñu jógee nag record dañuy dem si Leewtoo TV ak Leewtoo point net démb ni nga woon si cérémonie euh, de distinction yi nga xam ne Matar Ba moom la defal euh, yenn sportif yi surtout nag askanu làmb euh, def nañ fa cérémonie bu bu bu xam ne mucc ayib jox nañ fa kii di màng 2 ak Mohamed Ndao Tyson ordre national du mérite ki nga xam nag mooy Alioune Sarr président CNG jox nañ ko ordre national du Lion Babacar amaan yooyu sa décoration président Macky Sall moo ko doon def mais Matar mu jaale ko si loxo Matar ba sotti seeg def si la rek Babacar. waaw loolu la rek sotti cee ndax ndax ndaw ndax ndaw lu ne taxawaay ko ko yónni lay taxawe ministre Matar ba defe naa ne tey ci sport Sénégal Sénégal yu bëri apprécié nañu taxawaayam ak comportement ak disponibilité am tey nag bu jëlee ñoo xam ne nii parce que sportif la ko doon defal mais ñun liñ ci gën a marqué mooy lamb parce que ah euh, waaw ku ne nit ku nekk ak mbokkam yaa ngi dégg te ñun xëy na waa lamb ji fa la ñu ñuy féetale fa la ñu féete tey bu ñu tàndee mànga en tant que koo xam ne roi des arènes la bu reconnaître par reconnaître par le CNC wala reconnu par le CNC CNG ñu defal ko loolu jox ko or boobu ci turu président jaare ko ci Matar Ba loolu du ñu mën a def lu félicité Manga mais tamit wax ne loolu vraiment ñoom yeyoon nañ ko docteur Alioune Sarr tamit yeyoon na ko ndax liggéeyal na làmb lu toll noonu donte que tax xëy na du lépp looy def dana satisfaire ñëpp ki ci des tamit muy Mame Ndao Tyson tamit comportement ak taxawaayam. ci tey diira carrière am bi mu amee ak bi mu ci nekk ak bi mu bàyyee làmb itam yaakaar naa ne tey lu ñu ko defal ci làmb rek ci ay décoration yeyoo na ko muy ay nit yoo xam ne nii daal démb ñañ ko jox daal man si li ma jàpp moom yaakaar naa ne ñoom ñett ñëpp ku ci nekk yeyoo nga lool di ko rafetlu bu baax a baax a baax Babacar nag euh, si kàddu yooyu leen di tàggoon leen jox incha allah déwén maanaam le 2 janvier 2020 si yeneen revue de presse yeneen émission si euh, Leewtoo TV si kàddu yoon leen tàggoon nag leen jox di daje le 2 janvier incha allah mais balaa boobu mooy nuyu sama yaay Mère Sow sama doom Mohamed Diouf di nuyu Astane DG Brahma Chéri Khadija Diallo di nuyu samay doom mam Diarra Penda Bébé Fallou di nuyu nag euh, mention spéciale à Moussa ak ki nga xam ni mooy Petit Pape Dia doomu Bombardier ak ki nga xam ne sunu papa Bécaye Mbaye ñoom ñetti ñëpp tey la tey la ñuy fêté seen anniversaire leen wax dund leen dund leen ba ngeen énervé ki nga xam ne mooy Moussa di euh, doomu ami depuis passé asini tamit muy fêté anniversaire am Pape Dia petit Pape Dia doomu Bombardier aussi ñoom ñëpp ni fêté seen anniversaire leen wax naan leen daal ba énervé nuyu aussi ki nga xam ne mooy Abdou Gueye euh, depuis euh, États-Unis papa yi si te Baye Fallou jàmbagan yaa ngi si biir lu nuy yi nga xam ne daal ñoom ñëpp noonu doon seetaan suñu mbokk internet yi suñuy supporters suñuy fans ñoom ñëpp naa leen bonne et heureuse année 2020. waaw di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku si ñëpp di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm te yokku ko barke yonent bi sallallahu alayhi sax yàlla na la ko yàlla forcé waaw képp koo xam ne sax da ngay mer te mer di nekk lu baaxul yal na yàlla forcé la ngay bëgg parce que jàmm ci la lépp xaj encore une fois ndey Kumba Fall euh, suñu père Bécaye nag buy souhaité anniversaire buy fêté anniversaire am moom du ñu mën a def lu dul ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér parce que yaakaar naa ñun may def te oyof na te itam foo ko fekk boo ko bëggee boo loo ko bëgga laaj mu wax ci ak yow kon père Bécaye yàlla na yàlla guddal sa fan defal ko bépp doomu aadama yàlla na nga ko yàgg a feete doomu Bombardier boobu tamit ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal fan wu gudd ak wér mu yàgg a feete anniversaire am boobu dem bañ koy takkali ay soxnaak yu mel ni ki noonu te yàlla na sut turandoom aw fan di Pape bañ ko tuddee di ñaanal ñëpp jàmm di wax internet yi rek encore une fois ñoom bu dul ñoom du sotti parce que ñooy jënd connexion yi ñooy seetaan vidéo yi ñoo koy commentaire ñoom ñëpp dinaa ci jukki ay tour maram jaxumpa mi dafa dem xam nga tafaa géy ñi ñëpp sekk ndaanaan Alioune Ngom Adama nan mbaalo waa Adama mbaalo Thierno Balde Ibou Sagna ak lébu Cheikh Cheikh Bass Mamadou Sarr Abdoulaye mbay ñoom Mamadou Gueye Ousmane Gueye Benzema Deme Khady Rose Ndiaye tuuti ay Sarr ñoom Fatma Fall xam nga Sora Malick bu Lamsaar ñoom ñëpp bu ma leen limee dinaa juum yaa ngi dégg ah ca Chine maa ngi koy nuyu doomu ndoyu yàgg maar borom Liberté 4 Kempes tamit maa ngi koy nuyu mais di nuyu tamit Ibrahima Faye bés parce que bu ma dem ci bés bu Bolit TV maa ngi koy nuyu di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi ñuy bëggee mais fan si club Babacar bi encore une fois maa ngi leen koy wax di leen ko waxat awma seen fay yàlla leen yàlla fay barke yonent bi sallallahu alayhi wa ndax nag ku lay sotle bëgg na nga gagné te li ngeen di def yaakaar naa jàppale Babacar la pousse ko la ngir mu gën a dem ci kanam parce que Babacar defagul lu a tax sax mu am fans club mais yéen a baax di leen nuyu yéen ñëpp. mais Mansour nee na bul fàtte anniversaire jabaram. waaw non Mansour amagul jabar moom kay dama wax leneen maay di wax tamit Saliou Khoule mention spéciale. Saliou Khoule bu Zik FM mention spéciale yàlla na yàlla guddal sa fan wéral sa ay cër yaag sa famille yëpp maa ngi leen di nuyu mais di nuyu tamit sama soxna di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér gi yaram tereng di ko wax ne ko daal yàlla na jàmmam yàgg di nuyu sama di di ñaan yàlla tamit njaboot gi ñu yàlla boole yàlla na ci yàlla teg loxo barkeel ko defal ko njabootu doomu aadama yépp mais mention spéciale tamit à Pape Thialis fay parce que tamit ah feccum lii su neexee yaa jaa jàpp ca mbagg ya moom moo ñu jox waxukaay bi ñuy wax moo ñu jàppale di ko nuyu di nuyu